fàttaliwaat tam li nga xam ne ndigal la loo xam ne dafa bàyyi ko ci moom mu di ko santaane jëm mu jëm ci dëkk bi. Mm-hmm. loola moo di gis nañ ne euh, assainissement bi nga xam ne defoon nañ ko ci dëkk bi daaw mbënd mi mettoon na ci dëkk bi waaye la ko gënoon yokk mooy taw yëpp dafa fatt mm-hmm. loolu nag sëriñ bi wax na ne euh, da cee joxe ndigal tey bëgg taalibe yëpp góorgóorlu ci farlu ci ndax. commune bi nañ xam ne alali sëñ bi ña fa ne sëriñ bee leen fa teg kon ñoom bu fekkente ne ci seen loxo la loo ko teg itam nit ñi waruñoo toog leen seetaan nañ xam ne njabootu sëriñ bi lañ alali sëñ bi kon loola eh, la eh, ñoo xam ne kon gàttandu leen ci loolu bokk na ci liy dimbale moo tax sëriñ bi jox ndigal la sëriñ Cheikh Mbacke mi sëriñ Abdou Latif bi nga xam ne lépp lu aju ci loolu ci loxoom la ko teg eh, muy mu di ci taxaw taxawaay bu rafet at mu jot yéen a ko gis sëriñ bi joxaat ko digal moom dana ci sàddi kàddu waaye dana dajewaat ak yéen yéen daje wax leen ni mu ko xalaate ak yéene jëm ko bëgg a defee waaye sëriñ bi xam ne daal joxe na ci ndigal ñu jàppale ci eh, commune bi ndax bu soñoon ñu agsiwaat ci nawet muy mel na meloon daal wala mu ko yées loolu kenn bëgg ko kon noonu taalibe yi nañ xam ne loolu ñoo ko jariñoo mm-hmm. te bari ci ñoo xam ne dañoo fekk fi nga xam ne assainissement boo xam ne ndoxum taw moo fay jaar ñu jël seen foos yi ci biir kër yi branché ko ca loolu mbir la moo xam ne képp ku gisati ku gisati ku ne war ngaa dem ci ñëw ñëw dëkk bi nga yëgal leen ko ñu fexe nañ ko saafara ndax loolu taxu koo jóg assainissement boobu ñu ngi koy tàmbali waaye dañ koy door tàmbali àggagut kon assainissement bi fi nekk ndoxum taw bi moo ko tax jóg te loolu ndox mi day jaar fu ne kon loolu waris na ko bàyyi xel ñi nga xam dañuy jël mbalit tam di ko sakk ci biir fi nga xam ne fi la ndox mi jaar mooy loolu moo wax bokk na ci li gën a indi gàllankoor loolu nag la sëñ bi joxe ndigal ngir bëgg ñu góor góorlu ci ndax bu soñoon nekk ci dëkk bi ngir wuy si woote Sëñ Tuubaa bu noppi nekk ci tumuraanke diis na ci moom kon mu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ni mu ko diglee ñu feexe ba defe ko noonu ndax Cheikh Ibrahima Fati daa wax ne liggéey li liggéeyal Sëñ Tuubaa du wàcc kenn te na ñëpp mm-hmm. kon nag Euh, bu ci suñ bi joxe ndigal ni ñëpp xam ne seen njëriñ ci nekk mm-hmm. te euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daana wax ne li am solo ci liggéey Sëriñ Tuubaa mooy façon gi waaye na may feexe ba mu sottoom nekku ci suñ loxo ci loxo sëriñ bi la kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëfe sëriñ Tuubaa jërëjëfe suñ baax yi loolu bu ma ko waxee mun naa wax Cheikh Mouhamadul Mountakha mi sëriñ Tuubaa waaye ma wax Cheikh Mamadou Basir mii li tax ma wax cant yooyu nag danañ sant sunu boroom mi nu sëriñ Serigne ni ko mu Mountakha di waxee sant sëriñ Touba mi nga xam ne amul lu moom te moom rek lan soxla am waaye boole nu ci njabootam gi muy liggéeyloo di ko nuy sant ci boole googa waaye cant gi nag faaw ma excel ko ci ñi nga xam ne ñoo tax bu liggéey sëriñ Touba jugee ñu xalaat ma te mooy Cheikh Mamadou Mountakha Cheikh Mamadou Bassir mii xalaat gii ñu ne xalaat ci liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bii loon sant la sant gu rëy xam na ne dañ ci fàggul ci aw yiw kenn mënu koo natt kon dañuy sant rek loolu sant ba noppi nag ñuy fasoo jafe ndigal fu ñu ko déggee waaye di façon waaleel taalibe yëpp yàgg nañ noo yónni ci taalibe yi ndigal luy jëm ci liggéey waaye fu ñu ko yëkkatee taalibe yëpp ci ànd ba defe ko na ko sëriñ bi bëggee sëriñ Basiiru mii yàgg na noo jox ndigalu sëriñ Tuubaa mu jëm ci setal dëkk bi waaye buñ ko yëkkatee taalibe yëpp lan koy àndal te na ma ko daan waxee mu tàmbalee ci njabootu Cheikh Ibrahima Fall ci sëñ Seex jëmb laay njëkk dem bu ma sëñ Masaan yebal te lii noonu laa koy waat ba noppee nu waat nag bokki taalibee dëkk bi yépp ñu jiite daayira yi ak ñu mbooloo yi nan ko daan defe ba nu waree seetal dëkk bi muy mbale ma ndax lii day liggéey bu rëy bu am solo itam ndax ñu koy waxee balaa kenn ma def dara set daa am ba noppi waaye mënuñoo bale mu set ndox mi taafi rawaate nawet bi jëm ci biir màggal gi taataa yi ànd ak salte yi ne ci kaw tali bi wala ne ci kaw mbedd yi sedd mën kon ñaari liggéey bi faaw ñu ànd te kon bii moo war a njëkk ñu sekkar ci kanaal yi ba bu tawee ndox mépp dem ba mbalit mi desee ci kaw nag mu bale ko tonni ko balaa màggal gàddu ko kon kay dañ ñoo dimbale ci gàttandu nu ci sunu liggéey gàttandu googu itam nun danoo waroon bis bu set buñ xëyee nun ñëpp nu dem liggéey li sëñ Touba ndax ni ma koy waxee li waroon na liggéey ngir am ko nun sëñ Touba dañu ko andil yombalal ñu ko kenn ku nekk xam na dëkk Touba ni muy yombale ak dund te loolu pàggu teew sëriñ Touba la kon nag waxtu ñu wootee ne sëriñ Touba soxla na taalibe yi taalibe yi yëpp dañoo war a bàyyi lañ doon def bala sëriñ bi def lu ñu def ko ba noppi te danaa wax ci soññee yi ne waxtu wun déggee baatu sëriñ bi bàyyi suñ bopp dem ca sëriñ bi buñ delsee dana fekk sëriñ bi yombalal nu wala wóotanu ci suñ bopp loo xam ne suñ pexee boppi kese mun na ko may ni mu lu yàlla lay doon lu jaar ci sëriñ Tuubaa egsi ci noonu waaye loolu nag lay doon njëg gi mooy waxtu wu ne nuy yeesal suñ pas-pas di yeesal suñu jaayante di yeesal suñu yitte ci buñ déggee baatu sëriñ bi bala noo amati seen soxla bala noo defati dara loola nañ ko def na ko sëriñ bi bëggee kon loolu nag lay tàmbulee woote bi ni ko sëriñ bi waxee buñ yégee ne am na ndigal li waxtu wuñ ci war jublu nag ak nañ ko war a waxtaane waat ak nañ war a wootee waat lépp daanu ko def ba defee ko ni ko sëriñ bi bëggee ci diggante boobu itam jëwriñ yi kenn ku neen tàmbalee am xalaatam ca lay yombal liggéey ba la koy baaxal la koy defaral ndax daanaay wax ci suñu réunion yi njëkk ngir mbale mooy nan am jenn yitte mooy li sëñ bëgg nu defal ko yitte jooju bu ñu ko amee nag kenn ko di ci génn sa xalaat kenn ko def ci sa pastéef kenn ko def ci sa taxawaay yomb rek lay mën a def démb am na ko may waxal ne ko taalibe liy ndimbalam mu am pastéef ba nga xam ne du am jenn yitte judul déglu ndigal te bu ko déggee parce que yenn jëfe kon sëñ ba soo leeral na nu ko léegi na ko Seex Abdu Lahat bu ko fasee jëfe rek sëriñ bi moo nuy won na jaar ba jëfe nga am ndax sëñ bee ko yorul boppam kon sëriñ bi maa ngi nangu di façon di feddali di ko defaale taalibe bi yëpp na ngeen ko bëggee danañu ko defee incha allahu ba na mu daan demee mu demee nii na ngeen ko bëggee ngeen amee ko ni nu itam bu nu fa jegee lu nu bëgg mu yomb lu nu amee ko noonu ngi sant ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah